maa ngi ñaanal papa Sow sama doom ndax mook sama doom benn lañu di ko ñaanal lii mu jublu yal nakk ci yàlla may ndam li mu jublu yal na ko ci yàlla may ndam ci kàttanu yàlla ak yonent